قالوا سفيه لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبلايا أستكي ضرري قالوا سفيه لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن في القدر قالوا سفيه لخفي نهج ناس الشيخ زيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي واتركوا غزلي ما لي سوى طاعة الرحمن من وتري ما لي سوى الله اسم الله خيبني وجاءني ملكان الدهر من وذري ما لي غدا هنا عسرائيل يخبدني روحي نسير سوى مولاي في العسر ما لي غدا يوم حسر الخلق كلهم رب لطيف سوى مولاي ذي البشر ما لي إذا الدر أدناني وأذمنني خوص رئيم سوى المولاي يا ذو مريم إن صفهوني في ورد أغزت بي لشيخ سيدي يا شيخ البدو والحضر فلا أكون رشيدا مثل رشدهم فسوف يمتاز يوما أحظم السيرين فلا أكون رشيدا مثل رشدهم فسوف يمتاز يوما أعظم الشيرين الحمد لله الحمد لله الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر تلقى خلف تلقى تلقى في سبعة بين بابا بسمي بسمي بسمي الله الرحمن الرحيم بسم الله يلا باسمي باسمي لاهي لاهي رحمن رحمن رحيم الرحيم بسم الله الذي القرآن خدس لا منه ابتدائي وأرجو عنده النسلا سبحان رب كريم جار لي كرما بأن ألازم قرآن هداه جلا موكي yi ñoo الله بباخ دي bu baax di julli ci yonent di jiital suñuy cant suñuy ñaan ci sëriñ Mahamadul Muntaxa yàgg fi lool ci wér di ko jaarale ci sëriñ Mahamadul Xabbaan mii di jëwrinam ci wàllu alquran di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ca wéral ko ci barkeb alquran barkeb daaraak ak waa daara ci barkeb sëriñ Tuubaa mii mi koy liggéeyloo ci waar wi tey nag sëñ bi amoon mbégte seet si daaraam ji nga xam ne daaray boppam la ndax Touba ca kanam li muy liggéey lépp ci ron xilaaf ak muridiya la nekk ci ci moomeelam la nekk moom mii nag la yàlla def sëriñ bi dénk ko daara yi mu ñëw tey di nemmeesu nemmeeku daara ji njëkk ci daara yi tubaaj ci kanam yi mu tudde daara tànneef taxawal ko fii ci gedek Sëriñ Mbàkke Buso eh, am ci mbégteelu kawe di ñaan yàlla yit mu nekk ay daara yi daara mu nekk ab soññ it ci waa daara ak ñi daara ñor xamal ne daara daa war dëppoo ak dundin wa gën ci ni war a dunde sëñ sëriñ daara yafay fay jàngale it nekk yu yu yu mën a saytu wàllum jàngakum kum jàngale wàllu daara moo tax mu am mbégte lool ci ñëw seet si daara boppam ji e, di ci ñaan barke ak tawfeex ñaan yàlla mu yaatal ko ba njàngum alxuraan nekk lu gën a accessible daara yi nekk daara proximité yoo xam ne gox bu bu waaye génnati rek dana mën a am daara jum njànge njàngum qualité mu baax mu ànd ak sécurité delluwaat ci sa kër yi waajur waaw loolu moom moo moo moo nekkoon xam naa tànk yi waaw jox ko rek mu sànni ci yenn kàddu loolu kii waaw bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu baax a baax ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha yabal ni tey jii ci daara ji nga xam ne daara yi eh, eh, fii la nekk ci Touba Guédé te Serigne Fallou ñu ngi di ko saytu bokk ci daara yi waa Touba ji kanam di taxawal Cheikh Mountakha ñu ngi sant bu baax a baax di sant waa Touba ci kanam li ñu waxee Touba ci kanam sant yoon murid yëpp rek day liggéey boo xam ni bànqaas yu baree bari ci ci yoon yi ñu ngi ciy taxaw bii nag mu boole naag sëñ Saliou Diakhaté ak sëñ Mamor sëñ Modou ñoom ñoo ñoo ci wàllu daara yi. ñuy rafetal seen taxawaay bu baax a baax di ko rafetlu ndax waxtu ne suñ toll ci daara rek ñu ngi ci waxtaan koy tàmbali teg si woon xeer yi te ji bu noppee ba dañuy tàmbale jàng ma joxe tàmbali loolu nag sama xel di ci dal bu baax ndax sëñ bi def na saytuloo daara yi waaye lii doxin moom bokk na ci doxin yi ñu gën a rafetlu ndax eh, dafay mel ni ni Cheikh Khadim sance Touba rek dafa nekkoon ab gott muy dem ba doon doon njënd doon ba taxawaay yu baree bëri am fi muy ay jumaa ki jànguwaay jànguwaay yooyu nag jàngukaay yooyu nag dañ bëgg a bëgg di di ñaan suñu borom ak ak baaxu Cheikh Amadou Mountakha ak taxawaayam ni mu ko tàmbalee ca eh, daara ju mag jee ñu fas yéene daara yi mm, tuut tànk yi ñuy jàng ak ñuy féete kaw tuuti ku ci nekk rek ñu ñu sellal ko nii te loolu la koy la koy la koy war a gën a def rek mooy gën a jàppale waa Touba ci kanam bu baax a baax te loolu tam rafet na ci ñett bu baax sëñ boom day mel ni lépp luy lislaam rek suñ boom may na ko waaye loo ci gisee dafa am waxtu diine nag waxtoom moo jot li ñuy am ci daara ci dëkk bi ëpp na ñaari junni waaye dina bëgg na yëpp bu ne ñu def ca war lu mel nii wala lu te loolu nag buñ ko buñ ci bokkee rek ñun taalibe yëpp rek danañ am nuñ ko bëggee te loolu tam du ci ci daal yi rek day doon ci lekkeen week ndey daal yi nga xam ne ñuy tàmbali fi ne di def ay togg di ko dugal ci daal yi yalwaan bu bare bari ñu ngi tàmbalee wàññeeku loolu tam ñoo ngi ciy sant suñu ndey daal yi dañ ci gën a soññ di ñaan suñu boom fekk leen ndimbal di sant nag eh, ñi jiite daal bu ñu ngi sant waa ci kanam dañuy sant ki ko jiite eh, nga xam ne mooy jëwri ji mooy Cheikh mo Habib ak moom moom mi jiis de daara ji ak ñi ko andal ñëpp mu ñëw lim ñëpp waaye ku nekk dal gis na ni fa nga nekk yang koy rafetal kon nag ba suñu fàllu kon daara jaa ni ñaan yàlla rek mu di doon mu doon ay ay barab yu yaatoo yaatu yo xam ni dañ fi mokkale di fi di fi di fi di fi di fi amé ak cantuk serigne bi cantu serigne bi moy li serigne bi ñaan ci dëkk bi nu bokk ci ñu koy ñu def eh, noo ngi sant ñi bu baax a baax eh, ndax seen Abdou Habib eh, taxawaayam rafet na lool waaye di kàddu yi ma wax nag yëpp mi ngi maa ngi ko jëlee ci sunu jëwriñ di Cheikh Moudou Bachir mu Cheikh Moudou Fadal mi jëwriñ kër gi ak Cheikh Abdou Fatah mi nga xam tam mooy ko yore kàddu kër gi ñoom ma teewal leen fi ngir leen seenu cant nga bàyyi ko Cheikhul Baraka mi borom kër gi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou ci moom ci ci loolu mu ñaan daal suñu boom yàggal leen fi yàggal Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye Cheikh Moudou Abib daal li mooy ñi nga ma boole daal maa ngi leen sant bu baax ndax waxtu wu ne su ma jógee ñu jóg lii biñ koy tàmbali maa ngi ñoom la maa ngi yow ak ñoom la woon te waxtu wu nekk duñ duñ duñu noppalu duñ duñ tàyyi ñu ngi cee am nañu andi nañ ma sax ay sahaade yoo xam ne ci tajwid la bokk ak maxaar yu olof yëpp mu nangami téeméer yooyu de def nañ ci tadrib ba ba yep noppi loolu na kon noonu ci sant yàlla baax a baax di ñaan daal tubaa gépp rek daal yi maase mel nii wala mu mel lu gën te loolu sëñ tubaa ñaan na ko te day am ñun murid ñoo ci war laxasaayu asalaam maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp daal sant ok jërëjëf Mbacke ñu ngi sant bu baax kàddu yi tànk yi rek wax dëgg rëy ci ñun lool ndax moom <laughs> woote gi rek daa matoon waaye sa toolu xam nañ ne sa toolu bopp la euh, ni Serigne Touba wax ci alxuraan ñëpp xam ne moom la métier woon moo tax bu xasee ba dugg ci seen i nopp rek du yéen seenu ñàkk jot dara du ko xam loolu moom xamoon nañ ko bu baax xam nañ fi jot di ko tolloog itte yi di ñaan suñu borom mu yàggal la ba li nga yéene ci daara ak waa alxuraan yëpp mottali ko di sant it si jiili mi mi mi nga àndal suñu nijaay. ñu jokkoo ak moom ci yooyu xanaa jox suñu Maam kàddu gi rek. ak ak sëñ Abdou Khadir Niang Fall. ci biir euh, sëñ yëpp. ñoo leen di jotali ab euh, ab message boo xam ne dañoo bëgg daal ñun waa waa ñu yaakaar sëñ nekk fii ci dëkk bi nañu gën a takkuwoon nañ naka jekk sax waaye nañu gën a takkuwaat gën a nekk benn ndax lii kat euh, mooy seen mooy seen tool ci yoonu yoonu yoonu yoonu sëriñ bi te ab tool nag boo ca nekkee da fexe ba ñax du ci am doo am xaaxaam doo am dara. loolu sax yéen ngi ci waaye dama leen ciy soññ rek ñu ngi sant eh, gone yi ndax léegi néew na loo loo dégg ay laaxaan yu jëm ci eh, gone yi te loolu bu amee rek sëñ daal la amee kon nag ñoo ngi ñaan rek kon sama kàddu gi ñëpp dégg ñu maasee na ci jàmm ak tawfeex kenn ku ne tam loolu tax a jóg rek muy muy muy tax loolu di defar lislaam rek nga sax ci te te bañ a xool lenn bañ a gëstu lenn xam ne buñ ca saxee rek ndimbalu si suñu boom danañu fekk. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax te di leen nuyu di leen siyaare ci turu Touba ci Kanam ci turu seen njiit sëñ bu Mbàkke ak mboolem ñu àndal liggéey bi yëpp waaye ci turu commission bi nga xam ne mooy scientifique te taxawal liggéey bii fii nu nekk nag mooy daaray tànneef Touba ci Kanam bi nekk Gédé di benn liggéey boo xam ne dafa bokk ci liggéey nga xam Touba ci kanam mi ngi koy def jaar ko ci scientifique te mooy taxawal ay daara yoo xam ne rek daara tànneef te nag liñ ci bëgg a wax rek mooy kon tànneef mooy daal day sàmm al asala boole ko al asriya nga xam ne daal lépp lu ñu manqué woon ci daara jiyee wala manqué ceen ñu koy boole ngir am ci benn nangu sëj boo xam ne gone gi bu génne day mat sëkk li mu doon ci alquran karim man koo ma xaarij man ko taj bu pare mokkal ko man koo bind loolu rek moo tax mu jóg tey nag ñu am mbégte lool dalal suñu wéjur suñu sëriñ sëriñ Mouhamadou Xabaan mi nga xam ne liggéey bi ab liggéeyam la ndax sëñ bi moom la dénk lépp loo xam ne mu wàcc ci alxuraanu karim bi ñu ci wàll googu tey nag bu ñëwoon xool si liggéey bi di liggéey boo xam ne ñu ko tàmbalee jëmmal euh, jamono yi rek tey jii nga xam ne ñoo ci njëkk a moo njëkk bindal tey ci àlluwa dalal leen bismillahi rahmaani rahim loolu nag yaakaar ci barke yaakaar ci xëy na yiw ndax alxuraanu karim moom sëriñ Tuubaa moo ko moom nee na yàlla ko moom loo te nag mu jëf ci loo xam ne nag yàlla yàlloon na ne lolu lu yenn la kon ñoo ngi wax ne daal daara ji moom tàmbali na te inshallah rabbi projet la boo xam ne euh, projet yu bëri daara yu bëri la war doon bi rek mooy bu njëkk bi bëgg nañu ne daal ba lu mu gàtt gàtt dem ci fukk ba ñaar fukk ba téeméeri daara li ko war a nag mooy rek gis ne dëkk bi am na jafe-jafe jàng karim ni nga ko bëggee moo tax Touba karim jël engagement fas yéene taxawal ay daara yoo xam ne day mat sëkk li mu doon euh, ba nga xam ne daal képp ku bëgg jàng dana lay fekk fa nga nekk. def fa daara joo xam ne day dëppoog lépp loo xam ne mooy norme yëpp sant bu baax a baax sëriñ Mamadou Xabaan nag ci taxawaay bi am na solo lool ndax bañ tàmbalee liggéey ba léegi fu ñu mas a nekk rek fekk nañu fa biñ koy ubbi ñëwoon na bi ñu teg xeer ñëwoon na bi ñuy tax tamit formation yi sëñ daara tamit ñëwoon na teewal fa sëriñ Muntaxa kon ñoo ngi koy sant ba di ko gërëm di wax ne daal liggéey bi moom benn liggéey bi la jullit yëpp ko bokk jullit yëpp ko bokk kon ñoo ngi ci tàllal loxo bu baax a baax nag mboolem jullit yëpp rek ñu xam daal seenub liggéey rek ñoo ko moom bu baaxee ñoo la baaxal tey day baax incha allah sant bu baax a baax nag mboolem waa scientifique di ngi tàmbalee suñu saalu jax mi nga xam ne mooy topp ci ñun suñu xaalis Jóob mi sama wet ak mboolem ñoom ñëpp rek daal liggéey bi lépp ñoom ñoo ko taxawee mu agsi fii kon ñoo ngi sant baax a baax te di leen gërëm di sant baax sëriñ Fallu ñoom mi nga xam ne barab bii moo ko joxe ndax moo ko taxawee ba mu sori mu joxe ko eggale ko ba noppi di wéy di jàpp ci liggéey bi kon moom a a am ci ndam li nga xam moom Sëriñ Tuubaa doon doon bëggoon te it yàlla defal ko ba noppi nag kon yàlla ko si nun ci sa jiit ak jiitu sama Muntaxa mi nga xam ne moo leen ko dénk te ngeen ma am nañ contentement lool te ak te gën a am yaakaar ndax ki lay liggéeylu bu fekkee ne tool ba ngay xëy bu xëyee fekk la fa xam na ngay liggéeyee doolu lay ñaan doolu laa taxaw loolu dana dana tax sam xel gën a dal ba nga gën a sawar ndax yàlla na ko yàlla waaw waaw sant baax sëñ bi nga xam ne moo jàppal baax seen ci moom ci moom la ñuy jaar jëm ci sëriñ xaban tey moom nag wax dëgg yàlla mu yombal lépp nag jàppandal ko waaye nag euh, muy ab cëram ndax moom wàll googu rek la xam te ndax jag ci la ma sa nekk kon ñu ko sant moom tam baax baax di ko gërëm di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp ñaan yàlla subhanahu wa taala ñëpp defal ñu dund dund lu yàgg di seenu njiit te daara yi jëm kanam ba daal képp ku nekk Touba te bëgg a jàng dootoo amul lay ngir bañ a jàng loolu mooy Sëriñ Touba li mu bëggoon kon yàlla na yàlla jëmmale ci nun ci barkeb Sëriñ sant nañ Mbàkke bu baax baax yàlla yàlla fay leen yiw jërëjëf Mbàkke suñu ko sedd na lool رب لطيف سوى مولاي ذي البشر ما لي إذا الدر أدناني وأذمنني خوس ريم سوى يا إن صفهوني في ورد أغزت بي لسيخ سيدي يا سيخ البدو والحضري فلا أكون رشيدا مثل رشدي فسوف يمتاز يوما أحظم السيرين فلا أكون رشيدا